abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door saa ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci jërë ngeen jëf coowal mbës mi di massage Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko bi wër àdduna tey la ko yoon di lijjantiwaat le témoin nañu moo taxit ndakaaru noyeetul dëkk baa ngi ne ñog ni ñu ko nemmee ko chaque fois bu yoon woloon jiital parti Pastef li ñu bari ci dëkk bi seenu fit du toog boole ceeki dëkk bi lépp naan tekk ñëpp di ragal fitna coowal Sweet Beauté li ñu war a atte tey ji ci chambre criminelle bu tribunalum Dakar journal bés bi le jour procès kenn xamagul ndax Ousmane Sonko dafay dem ci bi am amagul yoonu dem ci audience bi ab avocat yi mu tegoon moom président bu parti Pastef ne mooy mën a tax mu dem tribunal enquête dina kay ngi wax ne état bu Sénégal déglu ko sax lise ko nañu xawma ban audience de waaye bu tay bi moom Ousmane Sonko du fa jaar ak tànk Vox Populi nañu en muy moom Ousmane Sonko di Ndeye Khady Ndiaye mi moom salon bi Adji Sarr doon dàmpe Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi leen di xaar ci kanamu justice bi ci cité kër góor gi fii ci Ndakaaru beñe dugub dafa njuuy alkaati bi bi suur soi moo ko bindee noonu ci xëtamu njëkk ba dañu xamal ne ñoo nga ci buntu këram toog di ko xaar waaye boobe ba léegi gisuñu fa luy niroog Ousmane Sonko ñu gis ko moom Ousmane Sonko ci xët mu njëkk l'Observateur yéenekaay bi dañu wax ne fa mu taxaw fa la taxaw ba léegi condition yi mu tegaloon gaañ ne buñ ko deful du dem tribunal ci la taxaw ba léegi tribunalum Ndakaarook am tey ji ci audience spéciale l'Observateur gis na ne layoo risque la ci Ousmane Sonko ak ci kii di Ndeye Ndiaye

ñoñam di les patriotes journal l'info mi ngi ñuy xamal ci xët mu njëkk ne takku nañu ba dëgër jàttu ne socca taxaw temm ci taxawu seen waaji di Ousmane Sonko ndax nee nañu dañoo seetlu ne ak léegi kii di Macky amul jenn yitte lu dul nu mu mën liquider seen leader bi Ousmane Sonko waaye loolee dafay sonal boppam rek ndax du am nee na ñuy ci rekaay bi Pastef amul plan A amul plan B amul plan Z benn plan la ñu am Ousmane lu tudd sant Sonko te ak luñ ko mën di fexel ñoom danañu ko gunge ba mu am ndam ngoonu ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février 2024 directeur de publication bu yéenekaay yor di Serigne Saliou Gueye libération nee nañu mu nga jëm police tey ci yor yor ji waa sûreté urbaine ñoo ko convoqué dix heures li waral convocation bi libé nee nañu mi ngi tukkee ci article bu génnoon ci yéenekaay bi jëmoon ci magistrat yi toppandoo gi waa APR nekkee l'observateur xëyee na ko bil yéenekaay bi imitation di toppandoo ci wàllu politique l'observateur nee nañu waa APR champion la ci ne gaa indi nañu F24 ñoom ñu indi S24